makaarimul axlaaxi mbakkaanu yem ma jéema kañ te bàkk Seex Abdul Karim makaarimul axlaaxi mbakkaanu yem ma jéema kañ te bàkk Seex Abdul Karim makaarimul axlaaxi mbakkaanu yeem doomi sëriñ la dib sëriñ bu yaarame rafet ji ko waral mu bare ay xame doomi sëriñ la dib sëriñ bu yaarame rafet ji ko waral mu bari ay xame murit yaak murit yaak lu déglu sëriñ Abdou Karim Mbacké makaarimul axlaaq mu yëkkati kàddoom bala moo àgg ci liggéey ba asalaamaaleykum mbokk yi mbokki taalibe yi mbokki jullit yi mbokk Sénégal yëpp maa ngi leen di nuyu di liggéey bi nga xam ne ci lañ nekk fan yi sëñ Mor Talla Fall ak sëñ Touba Seen yëgle woon nañ ko waaye dafa am ay kàddu yu ci bëgg a dolli rek yoo xam ne dama koy xamle moo di Madina boobu gi nuy liggéey yi sëñ Mourtala moo ko yor waaye lay fekk sëñ bi yëgal ko ñëpp ñëpp daje fa bu boobaa mu mu jiitu ko di ko doxal ni ko sëñ bi bëggee bii nag gannaaw du tool yi Madina yëpp benn tool rek la ca sëñ sëñ yëboo ne doy naa ci moo tax bi yoon man rek maay liggéey tool booba waaye teewul nag bu ñuy liggéeyee ba noppi bu soobee yàlla sëñ Murtala dana ñëw sant mbooloo mi ñaanal leen ñu yeewi ko loolu rek laa ne woon dinaa leen ko dinaa leen ko gën a leeral tiijaan ya ñañ fay dajaloo ñam yey jalaañoo day dagan tey tegaloo Cheikh Abdul Karim borom makaarima laxlaax murit yaag tiijaan ya ñañ fay dajaloo ñam yey jalaañoo day dagan tey tegaloo dongom ya mokku lool di leeral seen kanam bëkkun fataaju ñam du ko xam Cheikh Abdoul Karim Serigne Abdoul Karim Cheikh Abdoul Karim def leen nii ñu màggal borom makaarimal lax-lax doy loo na Cheikh Bamba ba toog ca dëkk ba di am teraanga teddu lool ngir barke ba doy loo na Cheikh Bamba ba toog ca dëkk ba di am teraanga teddu lool ngir barke ba rafet ji ko waral mu doon kuy tërbiya ku kenn bëggul mu jël defar ca daara ya borom makaarima laxlaax rafet ji ko waral mu doon kuy tërbiya ku kenn bëggul mu jël defar ca daara ya ku man na def kenn aayewul gindi kuréer takkal ko soxna ak mu jëm xolom baleer ku mën na def kenn aayewul gindi kuréer takkal ko soxna ak mu jëm xolom baleer muy waaja daa aja daa yor paaka mbaamu yor yatam baatin ba cëb këlam ca rey laxas xelam muy waaja daa yor paaka mbaamu yor yatam baatin ba cëb këlam ca lay raxas xelam muy waaja daa yor paaka yor paaka mbaamu yor yatam baatin ba cëb këlam ca lay raxas xelam di leen ko jaajëf Cheikh Abdoul Karim ne ko jaajëf te ni ko jaaraama waay doomi Sëriñ Fallilu Mbàkke mat na waay dimul dikkul te waaju jaaxle seetu ko saabu fa bàyyi ko gindee ko sant ko sëriñ Abdul Karim demul dikul demul dikul te waaju jaaxle seeti ko saa bu fa bàyyi ko gindee ku sant ko day wër ci àll bi joxe teraangaam boole ñi muy dundal te deful daraam day wër ci àll bi joxe teraangaam boole ñami dundal te kenn deful daraam sëriñ Abdul Karim ku dem këram ba gis na muy dafay ganam waxam ja day rafet te day dëppoog jëfam day wuufe ngir woyof lu baax da ko ma ne jim am ci mbindeef yi lay wane Cheikh Abdul Karim day wuufe ngir woyof lu baax da ko mane yërmande jim am ci mbindee fi lay Abdul Karim day wuufe ngir woyof lu baax da ko mane yërmande jim am ci mbindeef yi lay wane te gin yab mat na ngor ga mat ak jom jaa te am na kersa way na baay ja doom ja te gin ya mat na ngor ga ak jom jaa te am na kersa way na baay nee na yéen waa daayira bi yéen lañu nuyu di leen sant waaye mbooloo mépp sëriñ Mourtada bu sëriñ Mourtada bu jullee takkusaan ba noppi dana ñëw fii sant leen yewi leen waaye nag nuyu bii waa daayira bi laa ci nuyu rek sëriñ bi nee na mi ngi leen nuyu bu baax di bég ci seen taxawaay. ngir liggéeyal yàlla ak yonent bi ak sëriñ Touba muy seeni bëgg-bëgg. man ngeen ko jële fii yàlla leen ko yàlla defal yàlla def leen ay may xéewal yu kawe sëriñ bi nee liggéey bi bépp sëriñ Mourtada noonu la ko daan wootee waaye nag loolu day fekk muy tool yi Madina Mbooba yëpp nga xam ne ñëpp ñoo fi war a daje yoon wii nag liggéey bi day benn tool bii sëriñ bi xam ne mbooloo mi mu daan woow xajuñu ci benn tool bi moo tax liggéey bi woote wu nam ci daan wootee sëriñ bi ne ginnaaw tool bi benn la xam na ne doy naa ci waaye sëriñ bi bu ma dee sant liggéey bi xam ne dana ko am ni mu ko bëggee yéen a tax loolu nag loolu nag war na leen a doy war naa dal seen xel ndax liggéey fii nu yendu tey day ci naaj wi ak tàngoor wi jëmmi sëriñ Abo moo tax jëmmi sëriñ Abo nag day jëmmi sëriñ Fallou moo tax mu jaral nu lii waaye am nañ yaakaar ci ne ku bëgg ngërëmul yàlla jaare ko ci sëriñ Fallou mu jaar ci sëriñ Touba jaal ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama ngërëmul yàlla li nga bëgg da ko am kon nag sëriñ bi nee na bég na ci yéen nee mi ngi leen di ñaanal itam yéen ñëpp yàlla faj seeni aajo yéen ñëpp mi ngi ñaan yàlla sàmm ñu ngi ñaan fi ngeen bëgg a yegg yàlla yóbbu leen fa nee na daayira yi boo gisee may def ak ñoom nii dañoo jàppoon a ñëw ndindi waxtu wi ñu jàppoon takkaloo ak liggéey bi ñoom ñu ne kat nañ ko def benn yoon rek nañ ñëw ci liggéey bi biñ ñëwee ndaje mañ waroon a def ci ndindi ñu far ko boole ci liggéey bi benn yoon looloo tax ñu dajaloo ñii ñu bokk di waxtaan sëriñ bi nee na ñoo ngi leen di sant di leen gërëm nee na lim leen di wax daal mooy ku def sëriñ Fallou muy sa sëriñ di sa xarit di sa soppe foo dem rek war nañoo gis ci yow loolu melo woo xam ne day wane ne xaritub sëriñ fàllu ngi nii xaritub sëriñ fàllu nii lay mel mooy yar ak teggin ak bëri kersa ak bëri yërmande loolu daal na ngeen ko yóbbaale sëriñ bi nee yàlla na yàlla jàppale na ñëpp maase tàllal fas liñ bëgg tey wax amin sëriñ bi nee na mi ngi ñaan ci kàttanu yàlla yàlla na yàlla faj seeni aajo yàlla leen yàlla sàmm fi ngeen bëgg a yegg yàlla na leen fa yàlla yóbbu ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa barke borom Touba barke sëñ Modou Moustapha barke sëriñ Fallu barke sëñ Baara barke sëñ Basiiru barke sëñ Abdou borom dër barke sëñ Abdou Samad barke Cheikh Ibrahima Mbacke barke Cheikh Abdoul Ahad barke sëñ Abdou Khadir barke Cheikh Salihu barke Serigne Souhaïbou barke Serigne Mourtada barke sëñ Modou Boussa Dieng barke Alhaji Bara barke képp ku mës a liggéeyal yàlla liggéey bu mu nungu allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim amin nee na li ma leen wax nag feeg bu takku saane sëriñ Mourtada dana ñëw joxe cantam bu jógee ci sëriñ Abo ñaanal nu nu yewiku baax ja doom ja yiwe na yeewu na yayoo xanaa jubooki mbokkam law la cet xam adduna yiwe na yeewu na yayoo na kañ xanaa jubooki mbokkam law la cet xam adduna Cheikh Abdul Karim woyof na teey na muñ na xol bayaatu na te am na fayda di bañ lu jombe na Cheikh Abdul Karim woyof na teey na buñ na xol ba yaatu na te am na fayda way di bañ lu jombe na ku buule yi jikko di sang jaadu na tey rakki Cheikh Abo Cheikh Abo mu baax mi sell na ku boole yi jikko di sang jaadu na tey rakki Seex Abo mu baax mi sell na ma jéem a kañ bàkk Seex Abdul Karim makaarimul axlaaqi mbakkaanu yem doomi sëriñ la dib sëriñ bu yaarame rafet ji ko waral mu bare ay xame doomi sëriñ la dib sëriñ bu yaarame rafet ji ko waral mu bare xame murit yaag murit yaag murit tijaan ya ñang fay dajaloo ñam yey jalaañoo day dagan tey tegaloo Cheikh Abdul Karim borom makaarima laxlaax murit yaag tiijaan la nangu fay dajaloo ñam yey jalaañoo day dagan tey tegaloo dongom ya mokku lool di leeral seen kanam bëkkun fataa ju ñam du gantuma ko xam dongoom ya ma ku lool lu mu waay coon gën a bëri loolu nga ñu ne ko Amadou Faye de suñu Amadou Faye de moo moo jógee Touba nii andi woon ay dof mu dal ubbi dal ñëw tiim ko mu ko Amadou Faye yaa def nii te boobu ñu muy jógee Touba di ñëpp màgg boobu mu ngi taw di ñebbi ñebbi te booba yoon gornoo yi amu fi de dañ daan fetal rek jaar ci àll bi ci yoonu saret yi di doxal seen tànk muy muy ñebbi ñebbi te taw ñu jaar bi ñàpp man ne mag ñi yàgg nañoo liggéeyal yàlla yàgg nañoo wut gërëmam dégg nga loolu na fii a ngi mu ngi fi am na fi da ngeen ko da ngeen ci jot incha allah incha allah. nee na sëñ Murtalaam sëñ Fallu dina ñëw ci kanam sant ñu ñaanal yi. léegi bi ñu jógee fële ci fii sax la sëñ Abo ñëwal boppam. nee na léegi rek bi ñuy ñëw ne teg na ndawi sëñ Abo mu ne leen sëriñ bi dana ñëwal boppam moom sëñ Abo. ndax sëñ baa ngi yéen suñu këram gi ci Madina boobu. ndax sëñ Abo yi yéen ci këram gi ci Tuubaa Madina booba. fi mu ne ma nga fa. sëriñ bi nee na tur na mi nga ma di dem booba ca kër ga. kon nañ góorgóorlu bu baax rek. kon nañ góorgóorlu bu baax a baax a baax. daje dajeeg jant am dajeeg ngërëmam. te dajeeg ngërëmam. kuy wër ngërëmul yàlla. kuy wër ngërëmal yàlla. jaar ci sëñ Abo. jaar ci sëñ Abo. jaar ci sëñ Fallu. jaar ci sëñ Fallu. jaar ci Ahmadu Bamba. jaar ci Cheikh Ahmadou Bamba. dem ci Rasulullah. dem ci Rasulullah. da nga am ngërëmul yàlla. da nga am ngërëmal yàlla. su ñu mu yàlla rek am solo. sëriñ bi nee na gërëmal yàlla rek am solo. moo ko moo am àdduna. ak ah. moo am njëriñ àdduna. ak ak àllaaxira. nee na ngërëmal yàlla. mooy maye àdduna ak àllaaxira. moo am. moo am àdduna. moo am njëriñ àdduna ak àllaaxira. moo am njëriñal àdduna ak njëriñal àllaaxira. kon nañ fexe bu buñ Karim Serigne Abdoul Karim def leen nii ñu màggal borom makaarimal laxlaax doy Bamba ba toog ca di am teraanga teddu lool ngir barke baa doy loola Cheikh Bamba ba toog dëkk baa di am teraanga teddu lool ngir barke baa rafet ji ko waral mu doon kuy tërbiya ku kenn bëggul mu jël defar ca daara ya borom makaarimal axlaax rafet ji ko waral mu doon kuy tërbiya ku kenn bëggul mu jël defar ca daara ya ku mën na def kenn aayewul gindi kuréer takkal ko soxna ak mu jëm xolam baleer ku mën na def kenn aayewul gindi kuréer takkal ko soxna ak mu jëm xolam baleer muy waaja daa yor waaja daa yor paaka mbaa mu yor yatam baatin ba cëb këlam ca laxas xelam muy waaja daa paaka yor paaka mbaam yor yatam baatin këlëm ca lay raxas xalam ni leen ko jaajëf Cheikh Abdou Karim ni leen ko jaajëf te ni ko jaaraama waay doomi sëriñ Fallilu Mbàkke mat na waay dimul dikkul te waaju jaaxle seetu ko